Assalamualaikum semoga sama gars yi waaw cheikh bi des de ziar fu ngeen toll ci globe rek Asie Afrique Europe fu ngeen mën ngi di leen ziar da leen dimanche ñu dellusiwaat nag war a waxtaan ak yéen ci actualité yi ah, chronique liñ gis Euh, la xew ci Sénégal ñu wax ci xalaat euh, euh, jéem leen ci jot li waaw kuy ànd ak ñun nga ànd ci ñun ku ci ànd lu ñun tamit ñu xam ne loolu la yàlla dogal waaw waaye ñun dëgg ko fa nekk moom la ñuy topp ñëw di leen ko wax ngeen ànd ci ak ñun ak ngeen bañ ci ànd ak ñun ñun daañu wax li nga xam ne si mooy li nga xam ne si moom lañ xalaat ci actualité bi nga xam ne si mooy li xew ci semaine bii ca suñu réew ci Sénégal ñun ñu bokk ñun ñëpp voilà. ñu bare dañ leen di wooyee ay patriotes ñooy wooye seen bopp ay patriotes mais patriotisme comme ni ma koy waxee hmm, dafa am ay fànn yu bare yu yu yu nekk voilà patriotisme pour man du ay saaga du du du du ñàkk du wax lu ñaaw du def lu bon du inventé nit du ay sosal ay nit loolu moom mooy patriotisme voilà semaine bi gis ngeen ku ñuy wax Ousmane Tounkara man defe naa wax naa ci moom lépp lu mu wax ñaanoon naa samay auditeur ñi may seetaan bu ma kenn yónnee ay vidéo ay Ousmane Tounkara ndax Tounkara xam ngeen lu muy wax du wax lu yàlla wax lu yàlla bëgg lu yonent bëgg lu Sénégal bëgg lu dul am na haine personnel le la concerné envers le président Macky Sall defe naa ne joxoon ci exemple lan moo tax mu Macky Sall ndax triant boobu nga xam si moom lay dundee dox di ko def Macky Sall yalla dimbali ko ba àndul ak mom ci lolu donc motax mu amal ko hen bo xam si moy hen personnel bo xam mom lay doxé bëgg leen ko gëmloo yéen yi pour nga ànd ak ci lolu voilà fan yi deg ngeen ko ci vidéo ndeysaan mu wax wax yu ñaaw yoo xam ne si amul benn sénégalais bu baax ne nit ku baax nga ngay nawloo loolu ah wala nga ci ànd ak moom voilà jël ay doomu aadama toog fële ci sa amérique toog sa oto jël sa këyit bind ay turu doomu aadama di leen tegale ay góor jigéen ay lesbienne ñoo xam ne si am nañ ay président ak moom ndax bu ngeen dégloo liste boobu man dema nu ma koon woon dañ ma bombardé ak video yi ba may yàlla def ma ubbi ci benn ba ma ko ubbee li ma doon bañ maa ngi koy def ndax maa ngi wax ci moom tey te dama des woon du ma waxtu ci moom ak ñu mel ne moom ndax ñii ay dañoo tardé di wut kuñ tardé seen guerre personnelle leen yor bëgg leen jël yéen ñii di seetaan yéen ñi nekk Sénégal ngeen ànd ak ñoom ci yooyu déedéet xeexal Sénégal c'est autre chose booy xeex pour nation ba gis ngeen ñu bare dañuy ñëw di mbubboo ay kii euh, saañaa boobu ah, ndax ñu ko tëj ca kaso ba jéemuñu dem xool lan moo tax ñu tëj ko lan la def ba tax ñu tëj ko mais dañ koy bëgg a jël utiliser ko ñoom te xamuñu ne xeex ba muy xeex moom hmm, ak ñoom li ñuy xeex ça fait deux ndax ñoom dañu am seen question personnelle kenn ak moom xëy na mu nga ca kaso ba tey lam doon xeex ak la muy xeex wuute na ak loo xam ne digganteem la ak le président Macky Sall ah baadoolo bu mel ne Tunkara bi nga xam ne xenam la yor dégg naa fi benn femme ñu ne day menacé Tunkara dana ko yóbbu ci ay sëriñ dana ko yóbbu seen dëkk waa na dëgg Tunkara moo jiite menace yooyu Tunkara taxaw na fii daaw mi muy turee mi muy wax naan euh, lesbienne la ah ci ñeme yàlla goo xam ne amul benn preuve bu mu ko teg ndax bon bu mu bon iñaan bu mu iñaan ah mbaam moom nga xam ne considéré wuñ ko teg tekkiwul dara ca Sénégal jariñul dara Sénégal ah taxawoon na fii daaw mi mi war a dem Nations Unies moo taxaw ci vidéo fii moo tax wax leen ki kàccikat la boo xam ne ay waxam mu leen ci gëm dara taxaw ne mimi dana ñëw fii dinaa dem ci buntu ambassade ba muy jaar bu ma ko jekkoo danaa ko agressé dinaa ko rey est-ce que daf na ko man mii taxawoon naa ne ko gis nga Mimi Touré doo jege sax maamam voilà kok moy imbécile bi taxaw di wax ak yéen ak sikkimam voilà taxaw fi dafa yomb top yor sa list xaadim ngay cagala ah na nu to di gor kura la ra cagala diw li la diw le la ah mimi lesbienne la yoy dafa yomb ana preuve ba waaw nit boy wax bëgg ñu lay déglu da ngay teg ay preuve tunkara li ma lay jox dama lay jox exemple boy waxati ci ku mëna doon nga tek preuve

On a la richesse de la vérité. Allô Ok. J'ai retiré 9 millions de ces jeunes que vous avez en prison. Je l'ai retiré 9 millions, mhm. Il m'a dit qu'aujourd'hui, ce matin, il m'a appelé et Tunkara, il y a deux ans de cela, tu te rappelles Mais oui, je me rappelle parce que je suis seulement allé chez lui une fois. Ok. Donc je me rappelle. Ok. alors une gars a un sax man may continuer foofu bu ojo vous bëggee vidéo déjà euh, audio yi ah ñoo circulé man amoon naa ko yàgg si la trois mois pour nous, ko ma denc parce que bëggatuma wax ci listam boobu bu ko ne mën naa leen tegal ojo yi diggantam ak Interpol newoon naa leen sàcc la ci ay oto lay dox di triande ay doomu aadama dégg ngeen fii neuf millions yi doomu aadama ivoirien boo xam récupéré na ko naan oto jox naa ko diw ak jox naa ko xaritam kàcci kese sàcc na xaalis jàmbur bañ porté ko plainte ci Interpol ñu ngi koy topp ci affaire boobu Tunkara au lieu mu réglé yooyu out ca ñëw fii ay Mimi ay ay ay lesbienne ah, miss bee nangam lak liste góor jigen yow taf nga ne tunkara ku tekkiul dara do fagan do tus yow mën nga mën nga santage ah, état sénégal yow mën nga tok ci auto nan da ngay wax Macky Sall lan lay defat ku muy téye ku muy ah? activiste au moins il est au Sénégal di ñafé buñ koy tecc ci kasu ñukoy tecc il assume il a assumé ses responsabilités comme nous ko Diouf defee bi nga sa xarit la tout ce que tu veux la la wax la hassan woko ndax hassan ma ci bu buñ koy kaso mom mo wax lu tax ñu ko activiste bi ñu luñ ko dem lan la def ba a mais gis ku sa américain assumer dara. ñëwoo ci réew ma toog fa di wax la ngay wax ah ñëw na yow yaay engagé seen ay bataay di ko xeex yow loo wax dafa nga ne yow buñ nga naroon a bàyyi suba nee naa la du génn kaso ndax li nga wax état yow dina taxaw un vaurien sàcc bu mel na yow bu tekkiwul dara ah. ñëw naan day day day day day chantage état bi yow yaay jox ndax sa list yu bon yooyu yow Mimi Touré laa lay wax bu doon Mimi Touré lesbienne la comme nu nga ko waxee ah. le gaalaa nga ne euh, le sila nga ne moom góor jigéen la wala diw góor jigéen la diw góor jigéen list boobu nga yor yow def nga loolu Macky Sall moom la toog di wax Mimi Touré buñ ko tegee ca Sénégal ak rôle buñ ko jox ak miss boo ne ak sa liste boobu ña ca des ña nga génneegul xamal ne bis buñ génnee xam nga la moo taxoon ñu fal leen Ousmane Tounkara ah mooy li ne seen jur gi loo xam ne sa bopp bi yow nekku ci waaw ñoom dañoo am seen crédit ah, dafa am lu ci nekk ba tax ñu fal leen bu buñ leen di critiquer nañ leen critiquer ci loolu waaye bu ñu jógee ci seen liggéey def ko nañ ko war a defee la ñuy dundee seen kër ñuy ay góor jigéen ñuy ay lesbienne kooku intéressé wul Sénégalais yi donc booy ñëw yor sa ay bataille yaakaar ne am nga dara demal ba Sénégal nga xeex ko fa Sénégalais yi nga leen wax ay Mimi Touré lesbienne laak diw di góor jigéen laak diw lee la diw lee la loolu intéressé wuñu bopp nit ke la ca nekk moo tax ñu fal ko boo koy critiquer critiquer ca liggéeyam bu ko deful na ko war a defee voilà mais yoroo fi dara doo foog doo tus te tappet nga boo xam ne boo ñemee demal ci territoire Sénégal nga accuse bu ñooñ parce que kooku dootu yaag Macky Sall bi nga xam da ko am sa haine personnelle taxaw nga fii ne yow Tunkara boo jekkoon Macky Sall mun ko rey da ko rey donc femme bi ñuy wax daf lay menacer yow yaa jëkk a menacer le chef de l'État menacé même Touré ne bu pas fee di ko agressé di ko rey yaa donc maire bi ne ay sëriñ que lay yóbboog yu kenn xamul ñu ne fi ci réseaux sociaux défendre non il défendre ko nañ wax waaw tapet nga bo am rancune envers le président quand se ak sénégalais sen yon bayil xamoo seen histoire xamoo lu tax ñu tëj leen xamoo dara ko nga ñëw def sa sa personnel waaw temps yi lañ fi wax ci xurum xàcc nga fi di saytaane si au contre contre il est là-bas sur le terrain nañ ma sur le terrain le gars là il est en prison maam mu ngi Sénégal tapet bu mel ne yow nag toog sa oto fee di kat ci doomu aadama di sos loo xam ne génnewu fi preuve nel Mimi gis nga kan moo jigéen boo xam ne am naa moom rapport wala ka nga ne góor jigéen la nga ne kii moom moo ko tëddee mu ñëw wax ak moom dafa yomb trop nga ñëw fii di lim ay tur voilà te yow la nga def kenn waxu ko Zeys am na la la la wax monsieur Tunkara Zeys waaw pour wax la né wax bu ñëw rek wax da koy ëndi waaw zais bobu dama len ci jox sama gaay ben affaire ngeen déglu ko ngeen mën ko gis voilà ak seen ay nopp xam khadim mom du sos du fen du fenal doom adama amul kenn ko xam amna lo xam daf la ko jappal wala mu la koy teyel voilà ki dama len di won ben photo xol len photo bi gaay ngeen xol luñu bind ci kaw waaw ak kan ngeen ko mëna gis waaw ki ngeen gis muy ré moy kan séiste la muy ñoo xam ne un moment boo xam ay góor jigéen lañ fa nekkal gis ngeen moo ngi nii tey ci pooju tunkara lañ jàpp tunkara moo sol costume fii mooy kii taxaw bu ngeen demee ci Google après video bi dinaa leen jox link boo xam da ngeen dem ci Google ngeen xam l'histoire kan mooy euh, moo géré séiste bi waaw mu ngi nii ngeen koy gis xool leen marque bi mi ngi nee ne sañ ak gémmiñam gu yaatu voilà xool leen pooj bi ñaari góor jigéen ñoo jàpp ci pooju tunkara voilà bala ngay wax ma wax len romb foofu ah taxaw suma gaay man wax as différence tunkara man ay preuve lay wax suma amul preuve duma ci wax li may wax dama ko teg ngeen mën a dem ci google mën ko vérifier te tunkara du ko dindi moo ngi nii voilà ki nga gérer affaire ngi voilà test boobu da ngeen ko fa gis waaw te naa leen jox link bi comme ça fii leerul nañ yi te live bi dama koy def nii mënuñu dem studio di ko fa monte actuellement sa prend 3 4 jours te bu ci yàlla àndee dinaa ko monter benn gis ko mu leer nañi waaw ki nga xam ne moo yor affaire bi test boobu ngeen gis ci gannaawam mu ngi sol costume nekk seen soirée ay góor jigéen la ñi ngi teye ci tànkam yooyu ci ñëw di leen jaay ay yaaram naan day génne ay liste góor jigéen ndax bu ànd ak koy wax ma ka ngay àndal ma wax li ay kan voilà ñii Amérique lañ nekk comme moom voilà te dinaa leen bindal link bi link bi bu ma paree ci vidéo bu ma kenn woo naan ma fan la lire leen ci description yi dinaa leen ci def link bi boo ci bësee dina la yóbbu directement ci page YouTube en ah non Facebook en ah, Google ngeen mën a lire loolu lépp ngeen xam histoire bi xam kan la Tunkara ñan ñoo téye ci tànkam yooyu waaw ci poojam muy sàññaaral ñëw fii am fitu naan day accuser ay ay Mimi Touré ay kii góor jigéen laak 24 heures laak yow da nga yow muusu Macky Sall ba ne ci palais ba muus ma wundu xam ngeen luy muus wundu bu Macky Sall yow mënoo ko santage état dina taxaw yow ngay toog fi naan ay liste góor jigéen laa yor ak liste lesbienne da nga génnee diw wala naan diw moom yaa ngi koy gën a sànq waxoon naa leen ko am na ñoo xam ne buñ taxawee fi ci réseaux yi di leen waxal ñu ngi leen di gën a suuxal parce que ñoom kaso ba tëdd ñu fa yow yaa ko tëdd voilà dafa nga ne mbaam mu mel ne Tunkara koo xam ne il waaye tekkiwul dara. amul ben signification moy taxaw fi ndax yor na ay këyitam yu mu bind diw ak diw dama lay jox ñetti tour ñent après na ko gene di ngand ngandu fi wax ñu yew nañu sax Macky Sall góor jigen la bu la nexé sa liste xamna fa ngay mucc nañu mak lan mo ñu intéressé Macky Sall bu nekkee góor jigen sax pour àggal la fa avant nga fay ñew quoi parce que fofu nga jëm voilà yoro fi dara yoro fi tous yak der fen kat si ndax sa hen personnel nga yor envers

quatorze quinze millions de sénégalais dem na leen ñu jël leen di leen dugal ah déedéet nit ki da ngay am sa xeex booy xeex nga am loo jàpp Sénégal nee naa leen comme tool la kenn ku ne jël sa waar lu bay ko waaye activiste bu taxaw ne moom mooy régler Sénégal lépp lu ñu wax mu ne ma nga ci biir moom moo koy gérer bu ñu ko dugalee ci kaso ba xool leen lu tax ñu dugal ko fa. bala ngeen ñew fi di ray nit ñi amu leen ben influence bo xam nit amna faculté bu taxaw ci ay ray ay facebook nan day dicté Macky Sall lu muy def ak lu mudul def état bi gënal ci dugalal ke mais vous êtes qui yeen da ngeen di gëna a dugal ñooñ dugal ca kaso ba wax ngeen fi yuuxu ngeen fi saaga ngeen fi def ngeen fu leen Macky Sall wax ngeen ko leen ma nga ci palais ba mo fa tok ba tay way du kenn ci yéen bu doon ay saaga la wala lu ñaaw lu ngeen di wax Macky Sall du foo nekk te ma nga fa ba tey jii loolu war na leen jàngal ne ay saaga ak ay wax yu ñaaw ak ay sos comme yi ngay sos Tunkara yii taxul kenn dara changé Sénégal wax ma ba ngeen dalee saaga ba ngeen dalee nekk fi di yuuxu en masse tax na wax leen ma benn point boo xam ne lii ngeen saaga moo tax mu soppeeku Sénégal man gisuma ko koo ji gis na ma ko signalé voilà kon wax leen ne kooku du yoon ba waaw asan bi ngeen di wax asan neen leen mbir mi du saaga du ci ay saaga mbir mi du ci ay saaga mën nga nekk activiste mën nga dénoncer mën nga xeex mais du ay saaga moom mooy faj ne bu doon day saaga rek ñu lii soppeeku sénégal wala li soppeeku ci nit ki dafa yomb trop demewul doon kon nag xoolaat leen seen activisme nan ngeen koy doxe ak nan ngeen di xeexe voilà

kàcc ngay def demal nga lire commentaire yi ñu la jox saaga nañ sa maam saaga bu ne booy sénégalais yi yow du mooy nañ la doo dara ci ñoom compté woo tous ci ñoom te doo ko mës a compté voilà koo xeexal perte la bu ku tungat yéen ñi ci du si tur ñàkk nga voilà nit dara sax moom la ñuy suivre ko topp waaye yow moom ci ci destiné à être derrière ci gannaaw ngay nekk waaw doo dara doo référence tous amul ku lay topp ci lenn waaw booy kàccee ci nag loo fi wax ci Mimi Touré koo fi génnee ne góor jigéen na nga génne ay preuve sinon sa kayit yooyu ah nga dem utiliser sa douche ba ngay toog voilà boo lekkee ba pare douche ba na nga jël kayit yooyu nga utiliser comme carte parce que ay wax kese amoo crédit boo da nga ni diw lii nit ñi di ko gëm déedéet nit ñi booy wax tegal comme lii ma la tegal si sa audio la yaa ko wax ak Interpol yeneen yëpp teguma ko intéressé wu mun naa ko monti teg ko ba ba ma ko yore léegi matal trois mois te maa ngi yeneen bagage si yow yoo xam mun naa ko teg fii muy ay preuve yu wér peñ ne man du ma la sosal du ma sosal sa morom voilà ñëw fii toog ne Tounkara góor jigéen la wala Tounkara mooy def lii Tounkara te déguma ay preuve dafa yomb trop loolu na ngay dundee amoo faculté boo xam te nga am looy wax Sénégalais di ko gëm te tegoo leen ay preuve kon nag Tounkara na nga réglé yaag sa liste boobu ah, nga lem ko ba mu jekk ak sa gen nga duju ci wala nga dem ca douche ba nga utiliser ko sénégalais yi dégguñu loolu sinon boo fi génnatee am fit yaag sa sikkim ak sa mbaxana ah, na nga ànd ak preuve nga won leen ko fii ci vidéo bi leen mi ngi nii ku ko weddi na gis mu leer voilà audio yi ma leen jox nag déjà mu ngi circuler ku ko ci soxla man yor naa ko am na ñeneen ñu ko yor mën nañ leen ko jox ngeen déglu ko digganteem sàcc googu mu doon sàcc waajoogu mu triandé accepté na jii ma leen jox neuf millions jàmb yu mu lekk naan jox naa oto ba xaritam ak yu kenn xamul yooyu benn rek la ci tukkaray def kooku mooy ki ñëw taxaw fii di accuser ay mémeeg ay diw góor jigéen laak diw lesbienne laak yooyu intéressé wuñu c'est leur vie tunkara ñooñu bu dee góor jigéen lañ ay lesbiennes lañ c'est leur vie privée seen diggante ak yàlla la yàlla leen di àtte du yow waaw sëñ Momar Diagne am na lu mu la wax tontu woo ko ma bëgg sama gaa yéen ñii nangeen dem ngeen déglu sëñ Momar jaañ dinaa leen defal sax linku vidéo boobu sama euh, ci vidéo bii ci suuf da ngeen ko gis bu ngeen ca bësee da ngeen dégg ndeysaan la mu ko wax nga xam ne kii koo xam ne intellectuel la xaarim mën ngeen ne du intellectuel du dara opinioniste la rek mu jeex mais un intellectuel ci alxuraan ak ci euh, mbirum àdduna voilà def na analyse ci tunkara am na yu mu ko wax tunkara déggul nangu la dégg yooyu dem di ko tontok yu ñaaw tax xam nga ne kee ay dàlli Serigne Momar Diagne laa la wax tunkara mérité wul di ko fomp voilà pour vous dire qui est tunkara ak qui est l'autre homme voilà kon nak na ngeen dem dinaa len jox ligg bi ku ci xamulul suñ moom rek jaañ nga dem setan ko man dama ne fi deug mom fi indi ke deug motax muy wax man ñu deug di wax mo damay ñew tek fi seen ay bagage parce que lañ wax dama ja and partager ko a 100% voilà mbam mu mel tunkara ñi jarñu senegal dañ yàq senegal voilà kuñ laal rek yàq nañ la kuñ laal ci yow nan dañ lay defaan yàqu nga kon nag yéen ñii ku ci tëj ca kaso ku ci def lu ñaaw fexeel ba tunkara bu mu la jël parce que daf leen di utiliser pour bataille personnelle contre le président Macky Sall te Macky Sall faalewul maamam sax laa la wax lu bokk ci tunkara sax faalewu ko donc moom mooy deere fële mu nekk mu jeex kooku nag fa laa yem ak yéen sëñ Momar Diagne ku ko ci amul tàppe ko ci YouTube nga xool dernier vidéo bi mu def si Tunkara ngeen déglu ko sinon nga xool danaa leen defal lien bi ngeen dem ngeen déglu vidéo boobu voilà bi ñu jógee ci Tunkara nag parce que mbaam mi moom jarul dara ñu ñëw ci keneen koo xam ne si Fou Malade la fu Malade moom tamit dama naroon monter vidéo bi mais man ne naa leen iñaanuma Wes Show benn booy boo xam ne dëgg moo fi indi Wes Show yow mi may seetaan bu la neexee tàppe ko ci tàppe West Show booy la boo xam ne dëgg moom lay wax di teg ay éléments man dama naroon monter vidéo bi mais yàlla dafa def tey ah, ma gis vidéo bi mu def muy xalaat bi ma xalaatul ak ni ma ko waroon monter ak li ma ci waroon wax booy bi wax lépp man nag iñaanu ma ñoo bokk liggéey bi ñoo nekkandoo fii ci YouTube kenn ku ci nekk di liggéey ci nan la gis Sénégal ak lan moo war a doxal Sénégal ñu mër ci xool war a xool ñi nga xam dañuy yàq Sénégal defuñu Sénégal comme genre Tunkara ba mu leen wax noonu ok booy bi ñëw na ci fu Malade Fou Malade interview nañ ko fii def naa Pikini xaw ma ñoo ko interviewé ah di ko laaj ci affaire wu t-shirt Wally Seck bi lu mu leen ci wax moom demoon na même New York sol benn njaxas ñu koy jaawaleeg ñooñu kooku dafa tooñ yoonu murit dafa tooñ yoonu Baay Faal sax laay wax voilà parce que njaxasu Baay ak couleur yooyu ils n'ont rien à faire amuñu benn rapport amuñu benn relation mais li taxoon mu tontu loolu te karo bi nga koy laaj bu ngeen demee ci YouTube nga gis il était nerveux ça veut dire que ne am na bagage yoo xam bu génnee du yam ca Wally Seck day day law parce que grâce c'est grâce à Wally ne naa leen ngeen sant Wally Seck ndax Wally tax na ba ñu sensibiliser sénégalais yi ci ni mu génne noonu naay sul mais nag na ngeen koy sant analyser li ma la wax bu loolu Wally yéen mi yow mu may xool couleur yooyu xamoo ko woon bu ko Wally sol woon doo ko xam tey xam nga ko ba di ko moytu buñ la ko joxoon doo ko sol voilà mais nag ku mel ne Fou Malade yoo xam ne avant Wally di sol affaire bi ay deux mille dix huit deux mille seize moom muy créé semaine boobu nga xam ne si semaine hip hop la bu ñuy def ca géejawaay ah dem leen ngeen xool affaire boobu bi sama gars yi ah gis nga écriture bañ ko bind dialogue am ñu la bindal te bindal lañ la kan mooy kan moo koy sponsorisé fond la tudd F O N D S waaw te ñooñu mouvement la bo xamné à part Ospam bi nga xamné ne si moom moo leen sponsoriser actuellement sen matériel yi seen show yi def en marche yi ñuy def sen plateau yoy sen tribune yoy ñuy def baaful yi ngeen fay gis ak microphone yek organisation bi lepp Ospam mo len koy financer te ko ngeen koy gis moy Fou Malade bop te pourtant ñoo ngi naan Ospam day day day def promotion gor jigéen ci Sénégal. Oxfam sax nañ ko bàyyi ñu teg ko fële mais am na jiitu Oxfam te daal li taxoon mu triste lu taxoon mu nerveux biñ koy laaj loolu ah waxu leen ko muy Fou Malade waaw manifestation boobu muy def Géejawaay ñi ngi cinquième édition bi lañ wujj dem leen ngeen xool ko ñan ñoo ko financé mooy fond boobu fonds boobu ma leen wax ñoo nga xam ne ñooy promo promotion góor jigéen ak lu ne ñoom li ñu wax daal mooy ay juboo àndandoo waxtaan dialogue ñu mën a supportente góor jigéen yeeg ku dul góor jigéen ak yooyu yëpp ñu mën a ànd mën a nekk benn tu vois te bu ngeen demee affaire ñoo ngi daw ci facebook actuellement sinon koo ci xamul demal ci west ah west show west show c'est un gars comme moi youtubeur la boo xam day toog di def ay live am boy maa ngi lay saluer di respecter li nga def def nga bu nice non la ko science won waron ko defé mais jitu nga mu bayina ko damay wax ci yeneen yow la bëgg ñu xol sa vidéo bobu dina leen jox lien bi voilà fi aussi ngeen mëna dem setan boy bi lan la wax ñu won leen image yo xam ne da ngeen fa gis euh, même Fou Malade ak ki nga xam moy patron wu euh, groupe bobu ONG bobu wala fondation bobu wala organisation bobu ñoo financer 5 éditions yi gaay def yépp gis nga da ngeen fa xol nak du ngeen gis affaire bobu boy bi dañ leen woon image yi comme ni ngeen ko mën a gis ci Facebook euh, partout na ngeen xol dialogue ba nan lañ ko bind yan couleur lañ utiliser couleur góor jigen yi lañ utiliser tek ko fa

dem leen ngeen xool couleur yi suma gars yi seetaan leen West Show ñu explique leen ñan ñooy fondation boobu prince xawma lan culture xawma dugg na fee génn booy bi leeral na yépp monté na vidéo comme ni ma koy defee noonu la ko dóoree ngeen seetaan ko West Show tàppe ko yow muy xool ci YouTube nga dem seetaan booy boobu nga déglu ko mu won la yépp noo xam ne man noonu laa ko bëggoon réaliser moom réaliser na ko

bu dee fans boobu ñoom ñoo leen sponsor yi nga xam ne ñoom ay góor jigéen la ñuy protéger di leen euh, encourage fu ne ci àdduna bi ñu andi ko ba ci Sénégal ci pays pauvre yi la ñëw di ko jéem a euh, di implanter seen bagage yi commencé yéen ay séminaire yooyu yëpp ñu ko doon def boobu Wally sologul affaire boobu de gisu leen ko Fou maar mi ngi ko doon def ak Y'en a marre ñu dajeeg ñoom ñu leen jox xaalis ñoom ñuy ñëw di organiser semaine boobu ngeen di ñëw di déglu yooyu di dem ci séminaire yooyu te ay góor jigéen la ñuy def promotion mais ay naafeq lañ ñëw fi naan dañuy accuser ay Wally set lee tax ngeen war a jéggul Wally attaqué ñee noonu ñoo taxaw ñoom lañ def parce que waa ji sol t-shirt bi sax waxul ñii nag ay séminaire lañ doon def di jàppale ñee leen créer nit ñi ñu toog leen déglu ñu leen di wax ci mbiru góor jigéen yeeg mbiru àndandoo bi nu mu war a nekkee yooyu fu malaat ak yaa man yaa maar ñoo ko def xalifa lan la wax ñun dañuy am suñu projet ñëw tekk ku ñu financé ñu jël mooy li ma leen wax nag bi bëgguma ko waaye meew mi di ko naan kooku ay nafeq ngeen yéen ak yaana maar yéen a gën a nekk ay fumiste ay vaurien ngeen sénégalais dañ leen war a weddi utiliser sénégalais yi bañ leen di topp ngeen am mbooloo moom ba nit ñi jóge fee ONG yi organisation yi ñëw leen jox ay trois cent quatre cent millions ngeen koy denc liggéeyu leen xayu leen gontu leen yor ay quatre quatre yoo xam ne si ay trente quarante cinquante millions lay jar war ngeen ko expliquer sénégalais yi bala ngeen di ñëw di critiquer ay Aliou Sall ak ay Macky Sall ak kenn ku nekk wax leen yéen ñi tekkiwul dara fan ngeen jële yooyu kon nag ndem leen xool Wes Show tàppe ko yow mi yor ah, ah, YouTube di nga gis booy bi nga déglu ko détails yi nga xool doo ko gisee da ngeen bàyyi wàll Seck xam ne ñi maam yi ñii la ñii def promotion góor jigéen c'est eux ndax Wally maam t-shirt la sol taxawul di wax góor jigéen yi lii organisation yi laa organisation t-shirt la sol taxaw ñu teg ko comme Jésus Christ nañ ko yee woon ca kaw daaj loxo ya tànk ya dem leen ngeen xool fu Malade ak Y lan lañ doon liggéey ci an yee ci gannaaw ñan ñoo leen doon jox xaalis yooyu voilà dañ leen won manifestation yépp benn bu ci nekk marque boobu dañ leen defal cercle ba West Show sama gars seetaan leen ko booy bi def na liggéey bu cool boo xam man nii loolu laa bëggoon liggéey félicitation my boy ok ñu ñëwaat ci affaire boo xam dégg naa ko tey ci Maty trois avion boo xam ni ngi jël rapatrier ay sénégalais nee nañ am na sénégalais boo xam ne si am na ay doom foofu man dama am doom itali bii amul gouvernement Italie wala benn gouvernement bu mu mën a jële fii séparé ma am sama doom te defuma dara analyser samay mbir defuma dara bala ngeen ñëw nag di jaxase nit ñi ak état Sénégal da ngeen di xool mbir yoo xam ne xamu leen ko ngeen di ko leeral bu ngeen ko mënta leeral voilà c'est pas parce que un Khadim gay mo nek feulé ci Allemagne rek ñew di casse ben affaire bo xamne xamul num démé nit ki bo nekké correctement di dund correctement amo ay président pénal amo yo def yo xamné ñi ñi normalement duñ ko xam mais police ba xam nañ ko mënon nako def Italie gi sax ñew en ah, Allemagne gogou hein ah, dafa jëya Yen ñi nekk ak mom Allemagne pour leral leen mbir ñu demé diko leral di ko Trois Pommes ak wayam joju ko wo xawma Ibrahima la tuddu xawma lan di ko wax ne am na yo xam dañuy ñew fi def fi jéeya daw almagne nekk fa am fa dom et tout gis nga fi Schengen lañ wax union européen mo fi nekk lo def ci Italie fi dem almagne wala nga dem France buñ la jappé police ak lu mëna a doon dañuy am sa président yi nga def fi c'est pas parce que dang ko def ci almagne mais boo ko defoon Italie daañu lay jël yeew la yóbbu la man mii j'ai des amis yoo xam noonu lañ leen def amoon nañ ay président ci Europe gee ñëw Italie gi bi ñu leen fi jàppee fii lañ leen tëjee kaso bañ leen rapatrier fii lañ leen jël yóbbu leen fa c'est pas parce que ñëw nga am nga dom rek def nga sa jeyé fu la neex sénégal nga yàq deru sénégal ngay def numéro 1 numéro 2 ñu ne fi di la ta te teguñu ko fenn amul ben sénégal bo xamné ne correct na di def liko war liggéey jaamu yalla tek lepp ci yoonam ñu xey di ko jël daan dañ koy delloo sénégal amul kok lim wax ay katch la lam la tax ñu yóbbu waajooju waajo waxuko ko bala ngeen ñëw di wax na ngeen di xam lu ngeen di wax voilà kooku mën naa am dafa defoon jéyee France wala mu def ko Italie wala mu def ko Belgique wala mu def ko fenn ci Europe bu demee Allemagne buñ nekkoon nit empreinte digitale buñ ko xoolee xam nañ ne rayoon na nit wala doon na jaay drogue fee wala def na fa lii walla laa buñ xamee na yow danga nga ne menace seen république dañ lay jël delloo la Sénégal ak Côte d'Ivoire ak foo mën a nekk c'est inutile ngeen taxaw di yuuxu fii loo xam du dëkk on est tous des kenn gënu fi nekk sénégalais waaye Europe lañ nekk duñ nangu nag ku ñu foyee xëy na ñu nekk Sénégal xamuñu lu xew fii mais ñun xam nañ nu mu demee waa yooyu buy jaay xam-xam ñu ko ëpp xam nan la état yi doxee nan la Europe état yi nan lay doxee na leer nañuy waxante dëggante bi ndax waa yooyu taxul ak moom ñuy wax fii di ko garanti voilà mais dana la xamal ne la du sénégalais boo xam ne jub na tegu ci yoon deful dara fenn ci réewu europe yi ñu ngi xey rek ndax antipathique na leen di yanu ko diko ko yóbbu sénégal déedéet demal nga gëstu lan la def bul xool lam def ci allemagne xoolal fan la jóge avant mu ñëw allemagne wala fu laa leen wax nag na leer kon nag ñu yàq quoi voilà lu ngeen bëgg yàqal Macky Sall di accuse Macky Sall wala gouvernement Macky Sall teg leen ko ci yoon parce que waxu leen ak ay dof na leer voilà loolu rek mën na wax yow ñuy répatrier ëllëg mu ngi lay taxawaat ci même programme mati naan dimanche xaw ma ban date xaw ma ban date ñoo ngi organiser euh, pétrole ay marche fii ban rapport la am ay Alioune Sall ak waa ju répatrier quoi xoolal ñuy jaxase saytaane ngeen war a bàyyi tey wax sénégalais yi dëgg gi voilà sénégalais bu dëng bañ yóbbu ko réewam moo dëng dëngu boppam ku jub ñi jub ñi ngi fii kenn laalu leen kenn faalewu leen ndax yoon daf fi am bala ñu lay yóbbu am na fu ñu koy teg mais am na précédent yoo xam ne naa la duñ ko def ci dëkk boobu ñu leen yóbboo dañ koy def feneen police européen yi ni ne ñoom ñoo bokk même affaire sama baaraam bi buñ ko tibbee gis nga bu ma defee benn affaire bu ndaw bu ma contrôler rek ma teg ko fa xam nañ lan laa def Italie lan laa defoon France avant muy ñëw Italie lan laa defoon Allemagne buñ xoolee na man sama réew mi kii def na lee ca Allemagne wala defoon na ko ca France danger la pour sama réew mais tax du ma ko jël de rapatrier ko bu doon ko sérieux na def na ay moromam lañ ko yabal ay waajuram ay sëriñam ñu yabal ko dil jaamu yàlla toppal yàlla dil tegu ci yoon dil wax dëgg dil def dëgg dil jëf dëgg bu ci toppoon kenn du ko jël di ko yóbbu foofu la wax ji yem nag ku bëgg a changer leneen saytaane leen état beeg lu leen neex voilà ne état Sénégal sax boo bëggee répatrier seen doom ci loolu tegul ci yoon ñoom daañu répondre ñu ñëw fii ay mati trois boobu naa lañ ko expliquer wala keneen kon nag mbir mi suma gars yi na leer foofu fi may tëjee mooy am na vidéo bu ngeen gis muy daw ci euh, ci Facebook bi Ah, waa joo xam ne si ma nga taxaw naan leen kër Macky sàll fële ca Fatick moom mooy lakk ñu woon leen benn vidéo boo xam ne si man maa ngi ñaan yàlla autorité sénégalais yi waa jooju nañ ko wër ba jàpp ko ñu tegal ko yóbbu ko ba kër Macky Sall ca Fatick ah muy kër gi waaw ngeen xool ko bu baax kii mooy kër Macky Sall ca Fatick kii mooy kër Macky Sall xool leen kanamu kër gi ni mu mel bu baax. yéen ñi ñu yónnee vidéo boobu ah ngeen xool kër gee nga xam ne ca kanam ma nga toj xanaa président lu mu dee dee dee dee këram dana mel noonu xool leen vidéo boobu ñu leen yónnee ñaari golo ñoom ñoo tag ñaari pëno foofu taal ko ñi ñëw naan Sénégal lii la mel nangam ñoo ñu taal pëno yi sax nañ leen jàpp dóor leen ci kaso bi pour ñu jàng parce que yar dafa am fu ñu ko teg bañ nit warul tax ngay def yenn éléments yi dem nañ ci benn kër bu naes rek ñu tag fa seen ñaari pneu taal ko ñoo ngi koy véhiculer ñu leen koy tourner ci Facebook naan la kër Macky lañ taal taal ñu dara kër Macky Sall Fatick seeni maam sax duñu fa jege mooy ñii leen di wax daañ manifester semaine bi semaine bee bu ñu toppul daañ dem pale Macky Sall leen place de la du ngeen ko romb te du ngeen fa jege kooku na leer yéen ak seen manifestation len nakari moy Sénégal kérok bi jogé final aksi sénégalais yépp ñom ñoo genn lool mom metti activiste yu tekkiwul dara yi xamné sénégalais bi bis bu ñu bëggee ak lu leen jar daañ genn ñom ñëpp won nañ leen ko kérok voilà ñëpp a génn baadoolo bu mel ay tunkaram yi na sénégalais yi keroog jekk nañ président mënon dal ci kaw kooku mo lay wax ne baadoola sénégalais yi ay baadoolo yu mel ne yow ñom leen taxone génne moy fêter les lions wan leen seen marche inutile yu vide yooyu ah sénégalais yi ngi leen di dégg xam nañ ko mais amul leen njariñ faale wuñ leen tey faale wuñ leen suba dem leen ngeen lem seen ngeen ngeen tox ci lépp leen intéressé gis nga ay millions de sénégalais ñoo génn ci mbedd mi ànd ak président Macky Sall bi ngeen bañ ñu célébrer ah, lion yooyu ñëw loolu Tunkara doon ñaan ak baadool yu mel ne moom amu fa. ñi nga ànd ak Macky mu mel ne un sénégalais comme ñëpp ànd ak ñoom dara dalugu fa macha allah ànd naax ñoom jox nañ lañ mérité baadoolu bu mel ne Ndiaye Doos dégg ngeen moins vingt millions ñu leen jox mooy affaire populiste yooyu yu salte yooyu ñuy def journaliste yoo xam ne si duñ ay wooleen ay journaliste sax mooy yàq deru journaliste quoi voilà vingt millions ñu leen jox ma Sénégal ni mette ñu koy jox ñoo xam ne am nañ xaalis non ñooñu li Charles wax Charles Fay lim wax 500 millions lañ leen wara jox kenn ku nekk waaw parce que baado lu melne yow njaay dos sénégal duñ mësa dégg dara loo xam ne honneur lu jóge ci yéen pour agsi ci réew mi ñii nag ñoom dem nañ wane nañ seen job dem nañ ba final ah buñ gañewul coupe sax mel na gañe nañ ko parce que dem final 24 nations hein ah. nga éliminer hein ah. 22 ya yéen ñaar ngeen des ca ah te nga andi loolu ñëw ci 24 hein ah. kooku sëñ bi

saa yu bëggee ñii lañ bëgg lions yi lañ gëm suñ drapeau bi suñ couleur yi lañ soxla won nañ leen ko ci tali ya yéen nag opposition baak yéen ñëpp du ngeen fokk du ngeen fëgan lii won na leen ko ne leen du ngeen dara c'est pas sénégalais yi déglu muy leen dañ leen dégg comme ni ñuy déggee coupe d'Afrique boobu ah waaye keroog ba ñu waree génn ñoom ñëpp ndeysaan génn nañ leen félicité di félicité encore les lions leen wax ne vingt millions yi ñu leen jox par kenn ku nekk sax tuuti na voilà njaay doos tëgg ko fële nga tàkk nga yor doo ngeen tus sénégalais bi ngeen di woote ak sénégal ngeen wax moom ngeen di xeexal yéen a gën a yées yéen a gën a bañ sénégal bu set les ennemis pires de la république du sénégal kon nag gars yi rus leen ci loolu ngeen def di leen jox rendez-vous ci fan yi insha allahu rabbi ak euh, yeneen vidéo dinaa def benn vidéo nag boo xam ne italien lay lakk parce que fan yi dafa am lu xew Italie dama leen ko expliquer fii bëgguma nag jaarale ko fi ñu may bind di ma woo waxal wala fag dugg na fii génn li ngay wax comprendre dama koy wax italien naa ko jaarale fii li ma leen fay wax nag en général en gros mooy dafa am lu xew fii barki dafa am benn gendarme buñ fi rey italien yeeg politiciens yeeg journalistes yeeg ñoom ñëpp ñu attaquer les les étrangers avant ñu police def enquête am ñoom ñu ñëw attaqué ñu wax nañu fi ñaaw ba ci ministre de l'intérieur bu nekk fii ah, moo jëkk wax na ay bataar lañ xam nga jóge Afrique ñu jóge fii ñëw fii di permettre di rey seen ay ay militaire seen ay gendarme kooku nag laa war a tontu tey xamal leen ne man ci réew mi laa nekk am fi droit comme ni mu ko amee Sénégal dinaa dal ci seen kaw dinaa dal ci ministre l'intérieur fii buñ may yeew nañ ma yeew buñ may rey nañ ma rey ñoom laay attaqué ak politiciens yi nekk fi ak journaliste foo yooyu nga xam ñoo bindoon loolu yàlla mi dara tawul dafa def ci ëllëg sa bu ñu def ak ñaari américain ñaari étudiant américain yu nekk fi yéenoon doon jënd drogue ah. waa ji nax leen jox leen aspirine au lieu mu jox leen cocaïne ñoom ñu dellusiwaat pour piéger waa ji waa ji woo diggante bi woo fi gendarme yooyu ñu civil ñëw gaa yi xamuñu woon ni ñi ay gendar ñu gaa yi jël ko jam ko waaye juróom-ñetti paaka la ko jam ba gendarme bi faatu ndeysaan démb bërki démb loolu xaw ci Italie gii ma war a wax nag policiers yi xam bindoon nañ ay tweets ñoom ñëpp attaqué ñu ñun en tant que émigré en tant que étranger ñooñu laay waxal tey donc ku ma dégg may wax italien à part vidéo bi bu ma bind naan ma waxal wolof parce que la may wax yëpp mënu ma ko wax ci wolof li may wax ci wolof wax naa ko fii ngeen may dégg mais may leen ma nag tuuti italien ya fa nekk léeg-léeg li may wax ci Facebook lay jaar mais danaa ko partager fii aussi mais nag boo comprendre lu may wax sax xamal ne en man loolu laa koy wax donc dama koy leeral fii bu ma kenn bind wala di ma woo naan ma grand li ngay wax xamuñu ci dara wala boo ko xamul sotal wala nga seetaan bu nga jéem intuir jéem a euh, indeviner lan laay wax quoi mais wax naa leen loolu moom laa war a xeex bi war naa ko wax nag affronter gouvernement bi fekk man poli en ah, politicien yenn Sénégal yi ne fi laa yamale man boo sama raay bu génnee damay taxaw jéggu ko langue bu mën a doon nag ñafe ñoom kon nag gars yi di leen tàggu di leen jox rendez-vous semaine prochaine incha ci fan yi bindul ci chaîne bi yow mi may xool bu fekkee bind woo ci woon na nga bindu sinon nga wax ko sa xarit bee voilà te li ma leen conseil nañ ko déglu ñetti affaire jox naa leen bi ngeen war a xool Tunkara ak affaire wu góor jigéen yooyu ok moom miy jaay leçon di ko joxe na ngeen dem yàlla weer na ko na ngeen déglu oustaz Momar jaan deux numéro trois West Show jox naa leen naa leen defal link yi après ngeen déglu yooyu ngeen gën a comprendre te xam ne ñu mel ni Tunkara tekki wuñ dara Sénégal te duñ ko fu ma sa tekki bu ñemee nañ fexe na góor yàlla yee ñëw Sénégal risque seen vie dugg kaso ne biti waaye tàppet bu nefee tekkiwul dara ngandum sikki mu di ñu raye ay listam neen ko na ko jël mu dem utiliser ci douche ba kon nag peace and love xam nga fan laa leen teg fii ciao